ah kii <laughs> man su ma koy su may wax si moom sax damay ree finalement du ma xam sax lu may wax dama koy bàyyi mu nuyoo Laurent maa ngi lay ziar. ça va je vous salue. ça marche bien. ça va bien waay bëgg. nice. alors Laurent. Laurent gars yi nee nañ Laurent gars yi ñenn ñi ah wax nee nañ Laurent dafa comique maanaam moom comédien la gën a ndurul ka mbër. loolu loo nice lu waay saf wax. billaay wallaay donta wóore rek noonu la demee gars yi dañuy wax dañoo war a wax ndax maa xew foog ñu wax yee dëgg kese. maa xew nii ko ah koo gis si TikTok yeeg YouTube beeg fépp yaa ngi di ma wër. maa ah, xew man ngay wër. <laughs> li ma neex si moom bon euh, bon. au delà de ça ma leen fàttali yéen ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd gise ak euh, fii ni ñu ñëwee nii sax dañu dañu kontaan ndax li tax ñu kontaan fii ay Baye Fall fi nekk ñun waa Caaroy lañ bu ñëwee fii presque benn la quoi donc kontaan nañ en tout cas ci ci booy ni ñu daree nii booy may ñu ñu jàmm ni mais yow déjà benn da nga am combat bi ñu ñëwee suba la combat bi nga def sa sa open press open press macha allah gars yi tiktok ko nice nga xëy war a bëre yàlla dogal gars yi arrêté déjà loolu rek noo ko dundee quoi. daa xaay waaw mais métti gaan. non du mango bay daa xaay combat bi. si bis bi lañ ma ne ma xaay na. barki yàlla. yee noonu la demee noonu la yàqoo. ay bor yu bëri fekk ñu ne. waaw mais maa ngi fay ndànk-ndànk nag. mais jooyoo comme bu Siteu. non jooy. bu Siteu man maam borum ay million aw ma sax benn million ay. yee bilaay. moom maa ngi ko doon tooñ xam man sama gain la comme lis ni mu nga nekkee dañuy waxtaan ma tooñ naan ko booy Laurent nee na nga bàyyi magam bi ngay laaj xam nga te nga ñëw wax ak moom mais moom nee na yow doon ay morom quoi foofu la. loolu la jàpp waaw ndax man moom booy nii fii yëpp maa ngi ñoom duñ ay morom man maa ngi Modou Lo ñooy morom quoi. yee nga jéggi Liss dem si Modou Lo. maa ngi Modou Lo ñooy ay morom booy yëpp du seen morom kese waaw. noonu la demee. mais yow lan lan nga jàpp ni yow comme par exemple ñi nga xam ne jotaguñu gis sa bëre carrément lan nga leen mën a wax à travers si Dakar Net émission bi nii loo xamante ne au moins dinañ jàpp ni au delà de waxtaan beeg ni muy reetaan loolu mën nga am nga ab bëre quoi bu nekk si yow. du leen ko wax man mënu ma dara mënu ma xeex mënu ma bëre su arbitre sifflé ginnaaw laay wane mënu ma bëre. yee waaw noonu la demee nag. <laughs> xam nga tamit <laughs> dafa metti quoi da ngay laaj lii xam nga mu tontu la lii tamit mais garaawul ni nga géré bon li ma bëgg xam mbooloo bi nga jékki-jékki rek mu topp la nii te yow daanaka yow ñaata ñaata arène ñaata combat sax nga am dèjà loolu lañ ko musuma bëre arène man dox naa fi léegi musuma gis sa combat musoo bi la topp nii ak ko yàlla ah vraiment mais bis la yàlla dogoon tey tey nga ne peut am am kii yow wax parce que mais tamit kii bëre mooy daanu man ba ñu ma daanu yàlla na yéex quoi yee mais mais naa la wax de musuma bëre arène mais maa ngi ñoo yem coow si làmb isa maa sax si làmb même Balla Gaye maa xëpp si làmb yee te musuma bë ko teg loolu fu leer dugal TikTok ndax di nga fa gis Modou Lo du làmb ji waaye yow làmb ji bës la ba pare avant bëre yee ñun suñ bëree ñu tam ñu zooke bilaay yow xale man zooke bi est ce que doo ma ko tekkil zooke zooke lan mooy zooke bi. yooyu yëpp tànk daanu ma dama ko tekkee. bilaay mais c'est yi nga côté yi nga côté tee ko côté ko di xaar ba léegi moo bari. mais yow boo yàggee doo ko fàtte sax yow li nga li nga dajale yëpp doo ko fàtte yow. lépp laa si def. lépp lépp code laa waxaguma sax. su ma daanee ngéwal yëngu ñu ràcc doo géwal nag ma naan géwal yëngu. Eh, eh, wuyu ma baal seen yëf géwal yow njaaw nga yow lay géwale. ñun dañuy baara bu saf sàpp nga naa ma doo géwal ah ñun lu ñuy def affaire rek géwal indi fi cool ak nga xool léegi tànk yi oyof toll bilaa yow. <laughs> léegi alors léegi CNG bi dañoo jël benn décision bees Bira Sène moom mi nga xamante ni moom moo ko jiite moom nee na làmb ji léegi ñëpp ay ñàkku yow da ngay ñàkku. waaw xaaral a man pikiiru wu de. waaw baax na naa année balance 60 ans pikiiru wu ma <laughs> xanaa dina fi jóge yàgg yàgg pikiiru wu de. waa xaar waa moo la xam nga yow waa waa léegi kañ may may ma wax waa léegi may waa may ma wax léegi léegi waaw la naan yéen ak booy yéen ëppal mu bëgg xam mooy lis lis lis lis euh, soin yu serré lis kii nga euh, lu ma ko mën a xee yow de voix nga gars yi dañu lay bu dee benn ñaar nit sax yaa ngi koy wax léegi TikTok bi tey tey bu duggee ah gars yi dañ koy partagé lii am na nu mu dee ñun dañ koy dagg parce que ñun am nañ compte TikTok donc dañ koy war a bokk si sensibilisation bi maanaam da nga war a sensibiliser sa morom sénégalais yi parce que mbas mi mi ngi fi tam mi ñuy rey gisoo ni da nga war a ñaax sa morom yi même boo ñàkkul sax nga ñaax sa ñeneen ñi non man sama gaale quoi sama papa pikiiruwul man du ma jël risque de pikiiru papa bi mag la mën na nekk mag la pikiiruwu ma xale bu ndaw man wax fa dëgg yàlla yee man pikiiruwu ma duma dem si kenn naan la pikiirul wala tami defal lu si waay neex naka def man sama bopp ko ak sama waa gàlle ñun pikiiruñu yee waxuma wax boo xamante damaa dépassé nit wala kii yuusu king papa yu moom day pikiiru moom waa lu dal baax na <laughs> mais man moom ma wax fa dëgg yàlla man ndaw laa ñoom Balla Gaye ba ñuy toll fii nii booy toll maa ngi ñoom ñoo tolloo niveau instant booy laa siy xalaat yenn mbër yi ñoom ba ñuy tolloo niveau ñoom dañ leen mësoon a pikiiru leen. boobu mbas bi amul mais ñoom dem nañ ba ci kaw ñun nañu bàyyi ba ci kaw bañ egg yow booy nañ leen bàyyi bañ egg ñoom man maa ngi ci kaw quoi. yaa ngi ci maa ngi ci kaw ñoom man. ñoom suñ eggee ci kaw xam nga lu ma la ñun pikiir loo leen ñoom ñëpp ñu pikiir rondo mais man moom pikiiru ma puso bëtu ma lu garaaw laa lay wax ni ñàkk bëgguma laay gëj naa pikiiru yàgg na de su ma amoon gaañu tasaanoo sax du ma dem pikiiru pikiiru ma dem mool na de xobu mango daal baax na ak xasum loora xasum xay yooyu baax na. mais pour tétanos mais mbas bi moom feebar. pikiiru bi faali la arrangé moom daa ndoxum siti waaw daa ndoxum siti ko. gis parfois ay làkk. man làkk yooyu dèjà mën nga ma si ñëwaal ci làkk yi parce que man laaj naa ko sànq liis dèjà làkk yi ban ban man xeetu làkk la njaago la créole la wala français la wala anglais la. lépp laay la làkkal làkkal ma xool. waay <laughs> nañ si def code waay. waxal loo saf waxal loo saf fii dañuy dañuy waxtaan fii Baay Faal maa la ñuy dund waxal loo saf. dara. non naaj moo loolu ñun dégg nañ lépp. Mm, mais li nga dégg nii man mu bëgg. indoo sax dañ koy làkk tun jaaxee mbéy jaaxee kali mani ñali xee. ñun lépp denkee lii de doo ko répété lii moom da ngaa xoolal lii doo ko waxaat parce que da ngaa tëb rek sànni ko lii waxaat ko ma xool da lay xam dégg nga indo wala dégg nga indo. ma laajaatee leneen la. indo laa la laaj nga ñëwal dëgg la. tun jaaxee mbere jaaxee kàlli maññi xee loolu dafa fees. um indo la. waaw léegi lu muy teg si olof. non loolu munoo code lañ fiy def lépp code lay doon. est-ce tamit di ñu nax di naxaale sénégalais yi wax lu la neex bu ñu waxee nga ni code tamit mi ngi bëgg a yomb de lii. wallaay taalaay Sénégal aw ma temps sax pour nax leen. yee maanaam ay tiktok yi man xool tiktok sa basé wu ma man may tekki si wara daan Modou Lo tiktok bi bàyyi moo ko xel sax tiktok du ma de man làmba may fay. yee comme man maanaam damay waa lu bokk si làmb rek laay def. lépp mun naa ko si njaago mais naas mooy loolu. nañ si def code de boo xam man dafa ma intéressé te daanaka sax moo gën a tax ma woo man ba ma ko gisee dama ko statique parce que affaire bi dafa tellement que dafa compliqué ah, ba pare dafa drôle léegi man li ma bëgg a xam mooy loolu nga làkkoon noonu bi ñëwee hmm. si ah, si noonu la demee maanaam da ngeen gars yi bu dëgg ne yéen jël ngeen koñ bi fii da taa. non dañuy xuus ba naaw tamit ana maire bi waa tamit ah. loolu dañ ko war a wax wallaay te ñun amuñu jàppale de duma la ko nëbb de fu ma toog dama koy ñun kuñ jàppale dañuy téye làmb suñu loxo amuñu jàppale waa maanaam jàmm gën laa wax sax fépp ay taa mais sama koñ da see raw billaay wallaay keroog teew moo fi toj fii taa taw bi ñëw doggali tamit nañ gaay jàppale quoi yee kese alors ah, am na am na solo ah, parce que comme ni ma wax sànq nit boo demee ba yàlla def boo waxee ñu lay dégg même bu dee benn nit wala ñaar de temps en temps ngay lancer message di wax ak nga war a wax da ci am solo alors euh, xam nga élection locale ne dafay ñëw dafay ñëw 2022 bi déjà est-ce que kon war nga mën a ñaax sa frère yi ñu dem lijjanti ji dem jëli seen carte pour préparer mu maire bi ñëwee bu fekkee gis ngeen ne liggéeyul fii ngeen folli ko fal keneen waaw ñun moom ñoo yor suñ quarante kuñ neex lay fol kuñ neex lay carte électeur laa dem bind ci liste yi la fa jógee quarante xam naa moo jur yooyu wala noonu la demee nag man daal gaan maa sama carte ku liggéey ma fal ku liggéeyul ma tëbal la point maay voté ah noonu la demee ku ma neex laay votel waaw góor jàppal si góor la wala jigéen jàppal si góor. alors lan lan lan lan ngay tëjee waxtaan bi bëggoon nañ mu gën a yaatu mais dañu bàyyi ba nga ba nga am combat xam nga affaire yi gën a kii ñu mën a wax si làmb ji dëgg dëgg dëgg donc lan ngay daanelee. waaw naaj yàlla na ñëpp am jàmm. suñ juumee na ñëpp jéggal yi ay ndaw lañ doon xale dañuy wax naes pour xanga lu neex nit ñi bilaay di jéggalu àdduna ye bon appétit ah merci sama rappelé ok ensuite man Laurent maa ngi leen di jox rendez-vous fii si Dakar Net ak Ousin ah. sama waa sama yibaa wan keeso meeso reeso tàngal mante fereeso tous wan keeso meeso reeso wan keeso meeso reeso. dangal mantu fere show bilay yow.